am mbégte àndaat ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ay muuma yu toog di waxtaan kenn du dégg kenn du déglu noonee la journal las tuddee yi dox ci diggante gouvernement bi ak syndicat yi jàngalekat yi yëral xët mu njëkk journal bi enveloppe bu 69 milliards bi état bi nakkoon teg ci taabal ji te syndicat yi jàngalekat yi néewoon dafa néew état bi yokk na ko ba ci 90 waaye taxul ba léegi lëj daj yam ci njàng meeg njàngale mi lijjantiku G7 di kuréel gi jaboote syndicat yi a mag ci réew mi ñoo ne li ñu toll bi teg na ci taabal ci xaalis bu bari 90 ngir yokkee ko payrug jàngalekat yi waaye waa SAEMS CUSEMS dañu koo xeeb nee nañu doyul Vox Populi nañu gouvernement bi nangu naa dem ba téeméeri milliards yu manqué fukk syndicat jàngalekat yi ne bala ñu cee mën wax dara xam ndax dañu koy nangu am dañu koy gàntal in fokk dañu ciy waxtaan ak seen base bi bu noppi Vox Populi xamal ñu it ne ci alxamis ji di ñëw ci la ñu war a delluwaat ci réew mi ñoo ngi leen di ñaq-ñaqal teg leen pression ngir ñu dakkal seen grève yi delluwaat ci classe yi jàngale ji l'info nañu ba fi ñu waxe ak yéen négociation gouvernement syndicat enseignant demul ci ngi dikkul mbay laar Sud Quotidien te sax dafay bëgg a yàgg gouvernement bi def na ay proposition jàngalekat yi ne bala ñu ci mën a wax dara faw dañuy waxtaan ak seen base bi ba noppi alxames ji di ñëw ci la ñu wootewaat meneenum ndaje ngir wutuk déggoo ci seen biir gouvernement bi ak yi fa ñu jiitoo l'observateur mi ngi ñu koy leeralal ubbil yéenekaay bi ci indam ñi ñu wootewaat meneenum ndaje ngir wutuk déggoo ci seen biir gouvernement bi ak jàng jàngalekat yi fa ñu giitoo l'observateur mi ngi ñu koy leeralal ubbil yéenekaay bi ci indam ñi ñu woote waat meneenum ndaje ngir wutuk déggoo ci seen biir gouvernement bi ak jàngalekat yi fa ñu giitoo l'observateur mi ngi ñu koy leeralal ubbil yéenekaay bi ci indam ñi ñu woote waat meneenum ndaje ngir wutuk déggoo ci seen biir gouvernement bi ak jàngalekat yi fa ñu giitoo l'observateur mi ngi ñu koy leeralal ubbil yéenekaay bi ci indam ñi ñu woote waat meneenum ndaje ngir wutuk déggoo ci seen biir gouvernement bi ak jàngalekat yi fa ñu giitoo l'observateur mi ngi ñu koy leeralal ubbil yéenekaay bi ci indam ñi ñu woote waat mu mel ni euh, machine bi ci boppam mu daal di laxas mbir yi ñu ci jégalu bu baax mbokk yi Ablaye amul pexe beneen pour gars yi déglu. man kenn du dégg kenn du déglu noonee la journal L'As tuddee négociations yi dox ci diggante gouvernement bi ak syndicat yi jàngalekat yi yëral xët mu njëkk journal bi enveloppe bu 69 milliards bi état bi nakkoon teg ci taabal ji te syndicat jàngalekat yi newoon dafa néew état bi yokk na ko ba ci 90 waaye taxul ba léegi lëj dëj yam ci njàng meeg njàngale mi lijjantiku G7 di kuréel gi jaboote syndicat yi jàngalekat yi gën a mag ci réew mi ñoo ne li ñu état bi teg na ci taabal ci xaalis bu bari 90 ngir yokkee ko payerug jàngalekat yi waaye waa SAEMS CUSEMS dañu koo xeeb nee nañu doyul Vox Populi nañu gouvernement bi nangu naa dem ba ci téeméeri milliards yu manqué fukk syndicat jàngalekat yi ne bala ñu cee mën a wax dara xam ndax dañu koy nangu am dañu koy gàntal il faut dañu ciy waxtaan ak seen base bi bu noppi Vox Populi xamal ñu ne ci alxamis ji di ñëw ci la ñu a delluwaat ci négociation ya laajte mooy ñoo ngi leen di ñaq-ñaqal teg leen pression ngir ñu dakkal seen grève yi delluwaat ci classe yi jàngale ji laay fa nañ ba fi ñu waxe ak yéen négociation gouvernement syndicat enseignant demul ci ngi dikkul mbay laar Sud Quotidien nañu te sax dafay bëgg a yàgg gouvernement bi def na ay proposition jàngalekat yi ne bala ñu ci mën a wax dara faaw dañuy waxtaan ak seen base bi ba noppi alxames jii di ñëw ci la ñu wootewaat meneenum ndaje ngir wutug déggoo ci seen biir gouvernement bi ak jàngalekat yi fa ñu giitoo koy leeralal bi ci indemnité yi mu di ndàmpaay l'Obs nee nañu ca foofee fa doon dégg démb surnal yëpp xëy na ñu ko dëggalal tey mu di stade bu bees ba ñu tabax ca jam ñaajo maître Abdoulaye Wade la ñu koy tudde journal bés bi le jour ne ñu njiit réew mi Macky Sall moo jël dogal bi Abdoulaye Wade nangul ko ko li xaw a teey xelu journal bi ci wax ji moo di lu tax Wade bàyyi ba ñu jugee ci wotoy local yi jëm ci gouvernement bu yees bu ñu war a taxawal ci réew mi muy soog a nangu ñu koy tuddee dara ci réew mi Walf Quotidien ne ko moo jaaxal ñëpp ndax bi fi Macky Sall a jël ay dapoorub ko ko moom Abdoulaye Wade gi dane woon mukk du ci daal bu ko Macky Sall defee dina ko porter plainte Walf nañu Abdoulaye Wade mi ne woon du lekk ci mbëtt mi tey ji moo nangoon naan ci ñeex mi suur soi nañu tey day waxatu ci dara lu dul bég ci stade du Sénégal bi lañ ko tudde war ko inauguré ci teewaayu kilifa yu bari Les ko nañu juróom jàpp juróom benn njiit réew ñoo ngi leen di xaar ci inauguration bi leneen li journal Les Échos gis ci yëf yi moo di stade du Sénégal bi Macky Sall jël tudde ko Abdoulaye Wade mooy delloo na wattu ca ndaala bu nu sargal na góor gi stade boobee Soleil national mi ngi ñuy xamal ne suba ci lañ ko war a daloo mu dib xew-xew bu rëy bu war a doon ci teewaayu ay gan yu mag ay confidence di ndénkaan yu mag l'observateur xëy na ko amee ci ay jigéen yu mës a dund viol ci réew mi bokk ci ñoom Asta Seck Faringom NDS ba ci Alimatu Diop mi wax waa l'Observateur ne nijaayam lenq ak magam ju góor ñoo ko doon violé ba ci la jugee yàqu ci góor jigéen ñi seen sëyi di yëngu ndax marché bu naqari ak njëgu dund gu seer xëy nañu di wax ci Source A kenn ci ñoom ñu naan ko ndey muur nee na waa Source A ay fan ngi du wax jëkkër ji wax ndax jëkkër ji da koo mere ndax nee na dafa mën a laaj loole moo yëngal ab sëyam ba tax sëy bay rëg-rëg guy gi rëg yëngal ba mu rëg-rëg démb mu simpi ko sànni sunu lambu ci la xëy xamal ñu ne démb la woon lambu ji ci arène nationale Sénégal Entertainment Group moo ko tëggoon